ak ah. convocation bi ban lecture nga ñu ciy defal. waaw euh, man de bi ma ko déggee muy wax dama ne xam naa ne kii moom balaa suba dina dinañ ko woo. Mhm. maanaam woote bi moom bettul kenn <laughs> en tout man bettu ma. Mhm. Euh, parce que tamit xam nga euh, justice. bu fekkee buñ la fa woowee te buñ la fa woowee say mbokk say mbokk tiit loolu problème la. Mhm. buñ la fa woowee sa famille dañuy jàq. parce que bu ñu demee fi mu ne balaa ñu lay déglu ba déglu bii pare rek am mbugalu boppam la. Mhm, mhm. loolu du justice. maanaam euh, bu yoon amoon bu ñu la woowee ci yoon sax da ngay am dal. Mhm. parce que da lay wér ne nga mën a wat ci kaamil ne fee may dem sama àq kenn du ma ko xañ. mais tey Moustapha yow def nga wala defuloo bu ñu la woowee rek yow commencé nañ la mbugal. commencé nañ la mbugal tey fi ñu toll ni bu fa fanaanee dina fanaan ci gudd gu métti mhm. parce que kilifa nga koo xamante ni xëy na dund yu métti yi gëj na ci mhm. euh, koo xam ne ba mu gëjee bu génnee ci kilim oto ba dañ koy kilim lépp kilim la nga xëy dugal ko ci benn kaaf goo xam ne ay kañaak lépp fa loolu ah, mbugal la loolu la ñuy wax commissariat central waaw léegi loolu déjà loolu mbugalu boppam la mhm. loolu mbugalu boppam la léegi bu ñu demee ba ci ëllëg ñu ne la defoo nag léegi mbugal mi ñu la teg nag léegi nag ba pare kon dem dem ñu woola rek ñu ngi lay mbugal. def nga wala defaguloo. moo tax justice problème la boo xamante ni dañ koy régler. gis nga Omar ibn Abdul Aziz bi ñu ko falee dafa toog guddi di jooy. jabar ji na ko looy jooy mu ne ñi ñu tooñ tëj leen te yëguma ko te man maay responsable bi ëllëg. parce que tey man waxuma ñu jàpp la tëj la man balaa sama xol di jeex ñu ne euh, dañ koo def. dañoo dañoo ubbi instruction. loolu la ñu gis nga moo boobu ni mu ma naqaree mag yàlla dong ko xam. Mm-hmm. parce que instruction égal mbugal la. Mm-hmm. léegi instruction am na loo xam ne jarul sax ubbi instruction mais dañ ciy ubbi instruction pour téye la fa rek. Ah. mais loolu moom àq la. parce que foofu imam ñu ñu préciser bu dee wàllum correctionnel la. waaw.

waaw léegi léegi lii ana ban justice la ban justice la donc su fekkee ñi deful dara lañ sañ a def loolu ci seen aq waxuma ku ñuy laam-laame nag maître na ko ay mbokkam jàngal kaamil ñaan yàlla mu xettali ko jàngal kaamil toll na foofu non si man man day kaa yu mel ni moom bu ñu la ci woowee ndegam ñi deful dara la ñuy jël sànni leen fa <laughs> ñi deful dara xam nga Abdou Karim damay laaj lan la def kenn mënu maa wax lu mu def juróom-ñeenti weer ñu téye ko fa ànd xale bu feebar Abdou Karim dafa xiiboon wallaay mhm. boobu ba léegi juróom-ñeenti weer sénégalais boo laaj lu Karim def du la ko wax mhm. waaw ndegam nag koo koo kookoo mënu ki waxuma laa ku mën a wut ay kayit ñu naan la kayit gi baax nag baaxut mhm, ah mettre na ubbi gaalu muñ te dugg ci ah kon kon du yomb ci moom parce que ah, suñu déggee li nga li nga li nga li nga expliqué yal na ko yàlla xettali amiin waay waaw mais justice bi doy na waar doy doy na waar yaa ngi koy ni léegi euh, imam damay damay revenir si yow ci euh, procédé bi euh, fi mu toll wax ji euh, c'est pas la première fois un homme politique di di di wax yow sàmm jikko yi nga bokk mm-hmm. euh, duñ ne dafa sos parce que mm-hmm. leeraguñu la wax ndax am na war a amul mm-hmm. waaye euh, wax li nga war a wax fa nga ko war a waxee ak na nga koy waxee imaam loolee ban ban ban jàngal nga ci mën a defar jaadu na kàddu kàddu dafa rëy ndax lépp lañu war a wax ci pénc mi wala am na lu ñu war ta wax déedéet am na lu ñu warul wax du lépp lañu war a wax ci pénc kiy wax ku nekk surtout moom bu fekkee def na droit bon ñu bañ ko personnaliser ñu wax rek mu yaatu. lépp lu ñu war a wax ci pénc maanaam kiy wax na yëg ne quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf ci waxam ji moom mooy responsable bi d'abord. Mhm. avant ki muy tuumaal ndax ki muy tuumaal tant que demagul ba indi preuve mhm. moom la ñuy wax moom la ñuy laaj moom la ñuy déglu ba baa muy indi luy firndeel ni ki mu tuumaal moo ko def. kon yaakaar naa képp ku war a yëkkati kàddu ci pénc di def ay euh, révélation jaadu na nga natt lii nga war a wax est-ce que ci pénc lañ ko war a wax. Mhm. su fekkee jaadu na lu ñu war a wax ci pénc la mooy lan li ñu war a wax mooy li ñëpp bokk ñëpp bokk ñu dénk ko aw nit ñu ko boor maanaam di ko détourner pour ñoom ñu daw baatu sàcc parce que ñoom souvent bu dee ci ñoom la duñ tudd sàcc. dañ naan rek détournement moo am ñu ko détourner loolu dama jàpp ne ci li ñu war a wax ci pénc la bokk. maanaam da ngaa nekk ci mbir dañ leen war a jébaane war a jébaane ci kaw da nekk ak aw nit ñu dénk leen li ñëpp bokk nga yëg ni lii intérêt ñëpp la mu am ñu ne ci suuf di ko luubal te xëy na am nañu loxo bu gudd wala am nañu daraja bu tax justice du leen woo wala kenn du leen jàpp te boo jébaanee ci kaw mbir mi dakk mbaa ñu jéem ci pexe danga ko war a jébaane ci kaw ñëpp dégg ko loolu la wolof di wax ne reeteet reyul jaan waaye wane na ko. Mhm. ba ñu rey ko reeteen mooy picc yooyu nga xam ne bu ñu gisee jaan dañuy naaw ba tiim ko di sab. Mhm. ñu naaw ba tiim ko léeg-léeg jaan mën naa nekk ci benn affaire par exemple nga jël benn danger ñu ne jaan ji danger la mu nekk fii ñoom bu ñu ko gisee dañuy naaw ba tiim ko taxaw di sab di sab di sab di sab di sab di sab di sab yow boo gisee ñuy sab mais da nga naan lii lan la cest à alerte la. Mhm. soo ñëwee sëgg da nga yëg ne jaan moo fa nekk. nga jël yat rey ko. loolu lañ daan lépp naan. reeteet euh, reyul jaan waaye wane na ko ba ñu rey ko. su fekkee ci fànn boobu la ñuy defee ay révélation na nekk loo xam ne lu ñëpp bokk la ñu war ko saafarata saafarawuñ ko nga génne ko. Mhm. loolu man jàpp naa ne dara nekku ci. <clears throat> li nga warul génne nag mooy loo xam ne yow xëy na du sa affaire. yëfu jàmbur la vie privée jàmbur la. Euh, dundiinu jàmbur la. nga dem ca pénc ma ne ko fa bécc teg ko fa nit ñi nekk ci diw moom nekk ci jabaram jooju nekk ci doomam yooyu mm. nekk ci alalam yooyu loolu pour man bokkul ci li ñu war a def débat ci pénc maanaam samp nit ne ci moom waaw mais nañuy débat ci yi nga xam ne mooy intérêt public bi yëpp li ñu bokk su fekkee document yi ngay génn tamit dafa am loi yu la tere pour nga mm. wax ko ci pénc mi da nga war a ko ci loi yooyu yow nan ngay def mooy bindal <laughs> dem déposé fi ñuy clamé of nag mi ngi fi mhm. sañ nga jël document yooyu nga bind defar sa enveloppe dem yóbbu plainte dugal soo dugalee plainte bu bañee mën nga jàllaat feneen parce que kër yi nii plainte bare na fi mhm. man jàpp naa ne si fànn yooyu loolu doyoon na ci euh, def ay révélation léegi léeg nag politiciens yi am seen méthode bopp maanaam mhm. homme politique bi moom day soxla wax lu rëy euh, feeñal ci bopp publique bi lu ñu xamul woon ngir ñu mën koo bàyyi xel parce que moom tamit comme day jaayu bëgg nit ñu wóolu ko foog muy indi marchandise boo xam ne nit ñi dañuy intéressé wu ci moom yooyu nag moom mooy fexe ba buy dem mu xam yi mu war a yóbbu parce que réew mi moom wax fi yomb na parce que li fi jubari daa bëri wax fi lu nit mën a dégg te doo ci dugg ci lu jaaduwul bare na léegi nag tey fii ñu toll ci jamono li tax affaire yi xaw a compliqué même boo defee révélation ci li ñëpp bokk mën nañ laa même boo defoon révélation ci koo xam ne da doon jël ci alalu askan wi ba ñëpp xam ni kii day jël yow boo ko waxee boo moytuwul yaa fay des yow mi ko wax au lieu ñu laaj kooku mais yow la ñuy wax ne la indil ay preuve yow mhm. te waa ji mi ngi fi nee nga lii la def yobbu dañ naan ko kaay ñu xool li nga def mhm. moo tax tey mbir mi dafa jaxasoo ba nga xam ne dootoo xamati révélation yi ñuy def lan moo ci war a génn ci penc mi ak li warul génn. jàpp gi tamit est-ce du ragal loo tamit. ah bien jàpp gi tamit ku nekk tamit xam tamit balaa ngaa révéler tamit nga xam li ngay révéler. waaw mais jàpp gi ñoom loolu lañ ci jublu sax mooy dañoo bëgg bu kenn waxati pas que mën ngeen wax li ngeen war a wax de déedéet da ngay noppi parce que da ngay wax ñu ne la li ngay wax amoo ci preuve ba pare ñoom ñu la génnee li nga war a wax. Mhm. man li ma jàpp woon mooy. homme politique bu sérieux boo xamante ne am na parti sa nawle la mën na la gañe tey bu subaa mu nekk fa pour man su génnee yenn kàddu yi. génneel kàddu nga contredire li mu wax. nga indi vérité bi lan la. par exemple am na document yi mu indi na document yi nii la nii la nii la andil document yooyu wane ne du dëgg ba pare soo paree nga yóbbu ko ci biir. ou bien boo ko woloo ba pare fexeel ba ngalawaay ñun wax ñu vérité bi fan la nekk. su dee lii mu wax amul nañ xam yan document moo am mais souvent da ngay gis ko wax rek ñu woolu la daloon na fi. Hadjibou Soumaré Hadjibou Soumaré oui. Hadjibou Soumaré li mu waxoon. wane ne am na benn Marie Le Pen bu fi ñëwoon président jox ko xaalis bu baree bare gis nga bi ñu ko wooloo xaw ko fitnaal tuuti ba mu génnee la ne moom pare na ci lii mais li liñ buggoon tamit mooy mu leer ka ne jox nañ ko wala joxuñu ko mhm. bul fàtte loolu leerul de ba léegi waxuñ ne est-ce que jox nañ ko wala joxuñu ko mais dañ koo woolu moom mais biñ ko wooloo ba mu génne dañu waroon génnee rek wane ne lii wax amul ñëw na ab laaj la sam voilà mais dañu waroon wax ni président joxu ko dara mm-hmm. mu leer ci bopp ñëpp ñu xam ne président joxu ko dara mais dañ koo wolu déglu ko fañ koy déglu ñun xamuñ sax luñ ko laaj ak luñ ko laajul ba léegi cest kon da ngay yëg ne ñun droit à l'information bi nga xam ne am nañ ko sax joxuñ ñu ko ci wàllu ak dafay des parce que loolu bu dee argent public la ñu joxe ko dañ ko war a xam su dee joxewuñ ko dañ ko war a xam ñu xam ne ah kon ag agi bu dafa juumoon mm-hmm. mais déglu nañ agi bu génn na nee nañ nee na naa noppi pare naa ci mu noppi dem yoonam mais ñun ba léegi xamaguñu li mu doon wax est-ce que dëgg la wala du mm-hmm. dëgg loolu pour loolu ñu ñu xañ jaaduwul mm-hmm. loolu loolu loolu beneen mbir la mm-hmm. imam entre li ñu war a wax li ñu warta wax fañ ko war a waxee loolu tey ji naka naka nga koy gisee waaw xam nga terrain politique bi euh, fi ñu toll ni daanaka euh, Machiavel da koo gagné Machiavel daf doon wax ne politique amul rapport ak jikko amul rapport ak jikko boo duggee ci politique rek jëlal jikko ak valeur teg ko fële waaw léegi loolu moo feeñ ci terrain politique bi nga dégg bu njëkk sax xëy na ñun bi ñuy nekk gën a nekk xale yi ngay dégg Ablaye Wade ak yooyu bu ko ñeneen ñi daan tooñ naan ko nel boo xam ne attanul karaw du ah, attan réew ah, dégg nga kii ñu hmm. koy jël naan ko kii lëg la kële ñu ah. naan ko bukki la ah. xam nga seen wax ci ci daanaka ci hmm. tooñante la nekkoon kalante waaw waaw yooyu ci la yemoon <laughs> waaw yaa ngi dégg hmm. bon mais régime bi nii